alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi yaakaar naa tey mooy suñ ñetteelu jataay ci téere bu am solo boobu tudd al irshad ila tasxix al ictiqad bu al imam al cheikh saalih al fawzan tey bunt bi ñuy jël tomb bi ñuy jël mooy addaawatu ila alaqida saxixa wala wujubu daawa ila alaqida saxixa war gi mu war ñu woote nag ci pas-pas bu leer pas-pas bu set bu ñu góorgóorloo ba jàng ko nga xam ne loolu dafa war ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen mu sonne ko ba xam ko da cee war a woote nag nga xam ni day set wecc ci lépp loo xam ni bokkaale la ak bidaa waaye ngoy ci alquran ak sunna comme ni ko yàlla subhanahu wa taala waxe ci suratul baqara fa man yakfur bi taaguti wa yumin billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa la nfisaama laha wallahu samiun alim waaw ko xam ne da ngay weddi lépp loo xam ne bokkaale la gëm borom bi subhanahu wa taala ci anam ba mu gën a jubee ba mu gën a selle ba mu gën a baaxe loolu day yàlla nee na ku ko def nee na kooku yaa ngi ngoy ci buumu tawxid yaa ngi ngoy ci pas-pas bu leer nañ parce que allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min alzulumati ila annuur yàlla moom moom mooy gaay yi ñi nga xam ni ñoo ñoo ko gëm nekk ci pas-pas bu baax nga xam ne da leen di génne ci lëndam teg leen ci leer contraire ñi nekk ci bokkaale ak pas-pas bu leerul ànd ak seytaane ñooñu nag walladina kafaru awliyaauhum attaagut yuxrijunahum min annuuri ila aldulumat ulaika asxaabu annaari hum fiha xaalidun yàlla ni ci yàlla musal ñi nga xam ne dañoo bàyyi pas-pas bu baax bàyyi gëm yàlla bu leer naññi dem ànd ak seytaane ah ñooñu moom seen seen waay mooy seytaane te fam leen jëmee du fu baax ndax mooy safara kon daal dafa war ci jullit bi mu góorgóorlu kemtalaay kàttanam ni mu góorgóorloo ba xam pas-pas mu cay woote te woote ci tawxiid loolu mooy li yonent yi nekkoon yonent yi yàlla moo leen yónni woon te yàlla moo leen sant ñu woote te fam leen waxoon ñu tàmbalee fa mooy ci tawxiid kon loolu moo lay won ni képp koo xam ni góorgóorlu nga ba yittewoo pas-pas bu leer ci alxuraan ak sunna ngay góorgóorlu ba doo bokkaale góorgóorlu ba doo nekk ci ay bidaa war nga cee woote nag bañ cee yem yow rek waaye woo ci ñi ci des ñëpp parce que loolu la yonent yi sallallahu alayhim salaatu wasalaam nekk woon yàlla nee na wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan yàlla subhanahu wa taala nee na xeet yépp yónni woon naa ci ñoom yonent ngir lan yàlla ni ani abudullaha wajtanibu taagut ngir ñu jaamu yàlla te moytu lépp loo xam ni bokkaale la loolu maa ngi ci sootu ndax la kon da ngay gis ni bépp yonent bu mënti doon lam nekkoon di woote mooy tawxid bu leer naññi jaamu leen yàlla te bañ koo bokkaaleeg lenn bañ koo bokkaaleeg kenn abudullaha ma lakum min ilahin gayru la yonent yëpp doon wax jaamu leen yàlla bu leen bokkaale yàlla ak kenn wala leen soo demee yonent yàlla noox alayhi salaatu wasalaam loolu la wax nga dem ci yonent yàlla huud loolu la wax nga dem ci yonent yàlla saalix loolu la wax nga dem ci yonent yàlla shuayb loolu la wax nga dem ci yonent yàlla ibrahim loolu la wax yonent yàlla muusa alayhi salaatu wasalaam loolu la wax yonent yàlla isa loolu la wax sunub yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax ak ñëpp kon daal li war mooy jéem a góorgóorlu ci woote ci pas-pas te bañ cee gàttañ lu nekk ci kemtalaay kàttan mais ginnaaw bi mu leeree ci yow li waral lool it borom téere bi leeral na ko parce que nee na woote ci pas-pas loolu mooy cosaan li wax dëgg yàlla kuy góorgóorlu kum manti doon neel ci suñ liggéey mooy woote moo xam na nga yore association moo xam da ngeen yore mbooloo moo xam lu mu manti doon la nga war a gën a yittewoo ca ñay ànd ak yow la nga war a gën a yittewoo ca ña lay topp yi nga la nga war a gën a yittewoo ca ñay askanoo ci yow buñ leen laajee ñu ni fii leen bokk mooy nga woo leen ci pas-pas bu leer nañ loolu nag ah gàttañ lu ci moom mooy nit ki mi ngi daawa ci air mi ngi daawa mel na kuy bind ci ndox waaw képp koo xam ne yaa ngi góorgóorlu ni alxuraan ak sunna ci laa bëgg a nekk te lu jëm ci pas-pas sa yoon nekku ca wala doo ca woote wala doo ci sax former say nit bay boo nga xam ni say nit demuñu fenn parce que loolu mooy cosaan bi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam ngeen ni li mu nekk màkk yépp di woote ci lim doon woote mooy ci tawxid parce que loolu mooy base bi mooy cosaan li booy tabax da ngay defar sa fon fondement bu dëgër fondement bu dëgërul dara du ci taxaw fondement bu dëgërul dara dara dara du ci taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fukki at ak ñeent mu nekk di woote ci tawxid comme ni mu ñëwee ci xadisu Abdullah ibnu Abbas nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam même bu doon yónni sax ay saxaabaam ci manhaj boobu la leen doon teg kuñ ci yónni pour nga dem di woote wooy ñenn bala ngay dem di dugg ci ay politique ak di wax ci wàllu culture ak di wax ci wàllu ay information ci àdduna beeg di wax da ngay njëkk a defar pas-pas bi ba pare da ngay njëkk a defar pas-pas bi ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba muy yónni Muaaz ca Yaman daf ne ko innaka taati qawman ahla kitab wala qawman min ahli kitab yaa ngi jëm ci ñoo xam ni ah du ñuy réer nag ndax ay téere daana wàcc ci ñoom waaye fal yakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah wala fal yakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illa allah li ngi leen di njëkk a woon a nekk tawxid wéetal yàlla subhanahu wa ta'ala moo tax même ci beneen riwaaya daf ni li ngi leen di njëkk woon na nekk an yuwaxidullah nan wéetal yàlla subhanahu wa taala suñ la toppee ci loolu nag nga doogay dugg ci yeneen détails yi kon da ngay gis ni jullit bi dafa war a góorgóorlu daawa bi nga nekk mbooloo ma nga ma ngay nekkal ñi ngay xëcc ci alquran ak sunna ngir ñu jëfe ko jéema la fexe encore ni sa pas-pas leere yow muy pas-pas bu leer naññ ba àndul ak benn njaxas jéema la fexe ba ñoom it seen pas-pas leere ko noonu sinon ci lu ngeen ànd ànd ànd nga jàpp ni yéen a nekk fekk nekkoo leen parce que pas-pas yi wuute na loolu lu jara lu jara bàyyi xel la moo tax cheikh bi ci téere bi al irshad mu ni tey boo toppee da ngay gis ni yonent yépp ci manhaj boobu ci la nekkoon wàccuñu ko woon yonent bu ñëw rek lam doon njëkk yittewoo mooy defar pas-pasu jaam yi ba mu normal ba mu normal leneen luy dugg dooga dugg xoolal ci lislaam muy koor muy aji màkka muy joxe azaka yi yépp ca Médine la ko yàlla doo koy yoonal mais ca màkka déedéet màkka boobu ma ngay liggéey ca pas-pas ba même daana am yoo xam sax dina dagan nit def ko mais yonent bi da leen ci bloqué pour nekk di liggéey ci pas-pas dem di ziyaare ji bàmmee rek daf leen koo tere woon ci njaal benn ki parce que bañ na ñu dem ca bàmmeel ya dugal ca njaxas comme ni ci jullit ñi tàbbeewaat léegi dem ci bàmmeel ya di raay ak di ñaan ña fa nekk ak lu nekk ñu dugg ca yonent bi di liggéey ci ñoom ci pas-pas rek mais bi mu demee ba lépp normal mu ne lan mu ne leen nag ah kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi allah fazuruha daanaa leen tere ngeen di dem ci ziyaare bàmmeel yi mais léegi man ngeen a dem parce que boobu wóolu na leen kon képp koo xam ne encore yaa ngi góorgóorlu na nga xam ni yoon wa nga xam ni mooy yoon wa gën a baax yoon wa nga xam moom lañ tudde manhajul anbiya wa rusul mooy lépp lépp lépp lépp na nga ko tàmbalee ca tawxid leneen looy waxaat ginnaaw tawxid bi na ànd ak tawxid te na mujj tawxid da ngay gis ni yàlla xam na ne booy seetlu lii gàttañ lu yeesaa yenn yenn duaat wala yenn ustaas yi wala ñenn ñi jàng buñ ci gàttañloo da ngay gis toujours fay yi mooy di nga gis ñoo xam ne xëcc nañ leen ñu nekk ci biir sunna ñu leen di jàppe ay nitu sunna mais niñ leen formé nekkul formation boo xam ni yittewoo na leen ci pas-pas ña ngi doon wax ak ñoom ci yeneen da ngay gis ni yeesaa boo duggee ñoom ci buntu pas-pas maanaam da ngay gis ni ñu bëri leen tane xamuñ ci lu xamuñ sax lu bëri léegi mën nga gis koo xam ne sax ma ngay askanoo ci sunna pare maam di njabar ak di ak di njabar la wala koo xam ne ma ngay askanoo ci sunna mais yow bokkaale li muy rëy rëy rëy lépp moom jàppewu ko dara bidaa yi jàpp na ni amul benn problème waaw mën na fekk ku nekk ci bidaam nekk ak moom ndax loolu ci wasat yàlla la bokk ci juste milieu la bokk ci xam sa waaxee la bokk maanaam ay njaxas yoo xam ni li koy waral lépp da ngay gis ni mooy ñàkk woote ci pas-pas wala ñàkk formé formation bu ñu leen formé ci loolu sinon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ëppoon ñëpp wasatiya moo ëppoon ñëpp ak digg doomu waaye dafa waxoon waa Màkka lu leer nañ njaxas gi ngeen nekk bokkaale gi ngeen nekk bidaa gi ngeen nekk duma leen ci mos a fekk duma leen ci mos a fekk moo tax yàlla sax subhaanahu wa taala daf ko annoncé loo daf ni ko qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhaana allahi wa ma ana min almushrikin mu leer nañ ci sotti yusuf waxal ni hadihi sabili lii mooy sama yoon wi nga xam ni ci lay woote man ak képp ku ma topp mais nag duñ dem di tëñax tëñax dañ koy teg ci xam-xam bu leer nañ bu tënku ci alxuraan ak sunna man ak ku ma topp mooy lan mooy ku jël sama manhaj ku jël sama yoon mooy di yitte woo pas-pas duñu mos a bokkaale yàlla kenn wax ji wax ju am solo la moo tax ibnu jarir ibnu jarir tabari ci ci kàngam yu mag yu njëkk yi ci kàngami tafsir yi la bokk da koo firi firi bu am solo mu ni qul waxal yow muhammad haadihi woote bii day muy woote jëmale ci tawxiid muy woote jëmale ci wéetal borom bi subhaanahu wa taala ak sellal ko woote ci bàyyi lépp loo xam ni bokkaale la ak ki bidaa nee na sabili de mooy samaw yoon mooy samaw yoon wi nga xam ni ci lay jaar ci sama daawa ak ci sama woote man nag ak képp koo xam ni yaa ngi ma topp yaa ngi ma gëm teg ko ci xam-xam bu leer nañ muy wax ju am solo joo xam ni kenn ku nekk war na koo bàyyi xel kon di woote daal ci tawxiid dafa war kenn ku ne di ci góorgóorlu nañ nañ ciy gën a taxaw te suñ problème nag ñun fii ci Sénégal problème mu tawxiid la de problème mu wéetal yàlla la de ndax bokkaale geeg njaxas geeg yëpp li ko waral rek mooy tawxiid bu ñàkk a leer waaw donte nag woote bi nit ki da ko da cee war a bàyyi xel xam ni mu koy defee Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan waasia bim indee waxi borom bi subhaanahu wa taala bim ni udoo ila sabili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasanati wa jaadilhum billati hiya axsan ci suratu naxla fa yàlla doon wax naan yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam wooteel ci yoonu yàlla ci sa yoonu borom bi subhaanahu wa taala bilxikma ci xereñ ci xam-xam walmawcidati alxasana ak waar nit ñi waarin wa rafet wa jaadilhum billati hi ahsan ta nga dàkk dàkk santeeg ñoom ci anam boo xam ni mooy bëggan moom dafa tàqali nit ñi nit ñi ni woo def leen ñett moom ibnul qayyim mu ni nit ñi ni woo ñetti pàcc lan pàcc bi njëkk bi mooy waa ji nga xam ni moom ndeysaan innocent la moom daal dëgg lay wër dëgg rek lay wër saa yu koy gis di ko jël mu ni kooku da nga koy xamal rek soo ko xamalee rek mu jël parce que moom moom lay wër bu boobaa da nga ko koy xamal waaw imma yakuna taaliban lil xaq muassiran lahu ala gayrihi ida arafa nee na bu boobaa fa hada yudaa bil xikma kooku moom da nga ko koy xamal won ko xam-xam ci xereñ bu boobaa mu jëw ko mu ni ñaareel ba mooy ki nga xam ni nag moom ku sori dëgg la ku sori dëgg la waaye saa yu ko leeree naa ñit mu jëw ko nee na ku sori dëgg la waaye saa yu ko leeree mu jël ko mu ni kooku it nag moom yaxtaaju ila al mawidati bi tarxibi wa tarhib mu ni kooku dafa laaj ñu waar ko rek waar ko delloo ko ci borom bi subhanahu wa taala ci loo ko xeemeem loo ko xupp ko bu boobaa incha allah rabbi dina bàyyi neenam bi nekk ci dëgg nee na ñetteelu xaaj bi mooy ki nga xam ne nag moom nee na dafa fetteerlu ki fetteerlu nga xam ni moom xam na dëgg sax waaye dafa rëy pour jël dëgg nee na kooku nag moom ah da ngay toog ak moom nag pour wedem loo ko kooku mooy ki nga xam ne moom dañuy mujaadala ak moom billati hiya ahsan lii mooy waxi ibnul qayim rahimahullah rahmatan waasia kon ñi ngay woo dañuy wuute ki nga xam ni moom dafa jóg ngir jàng pour xam dëgg jàngal ko bu koy xam di ko jëfe kii dafa sànku réer wàcc sori na dëgg waaye nag réyul su ko xamoon léegi mu def ko kooku incha allah rabbi da nga ko woon dëgg ba pare nag di ko waar di ko waar ngir mu ñëw ci di ko waar ba convaincre ko ngir mu ñëw ci keneen ki ci des nag mooy ki ko xam ba pare nag féttal lu bañ lànk boo mu sax yow mu noonoo la wala mu xeex la wala mu tuumaal la wala mu dëkkal la fa dëkkul kooku nag bu boobaa moom di nga toog ci jat ay jataayu xam-xam dakk santeeg moom pour wedam loo ko moom xam ni ci neen la nekk lii dëgg mooy li dëpp ak alquran ak sunna kon mbokk yi incha allah rabbi fii la ni yemandi ci sunu dërsa tey ba beneen bis wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu